وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك في والدكتنا جوكتي على جمود سيزن يرغو أعمارا سيزن ميلين أندلون كرافيل خمسون قاف إجاب الرسول سمس البلاد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 54 79 17 téere Wadduha Amna Tengé Hotel ci 77 262 36 28 77 262 36 28 téere Wadduha Amna radio siwal FM mi dem amna point 1 wooteel ci 77 571 59 77 77 571 59 77 mbokk yi kitabu wa dua njeriñam upp na njegam juromi junni ngir fajj sa mbir Wadduha yalla mo ci giñ yor yor la leppay leer alaaji Mamadou Cissé Mara wa gol allahumma salli afdal salatina ala as'adi makhluqatika sayyidina محمد وسلم يا للقل سيدنا محمد yaa ma gënal yaa ma leen muhammadu rasulullahi su la yàlla mayee baat bu neex nga mën a way te wayoo yonen nga ka way dee na sa way wa nii la gëjoon naa di taalif ngir ñii di sàcc taalif te seeni bàyyi fer nu baasin fa yaasin kooku mooy muhammadu rasulullahi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 مالك يوم الدين إياك نحبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المحدوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما حلمتنا بحق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع عليم بحق ربي اسرح لي صدري wa yassir amri waxlul xoqdatan min lisaani yafqahul qawli alhamdulilahi rabbil alamin ñaanoon nañu yàlla toog ak jotaay seen émission Wadduha c'est Almadina FM di 97.8 ci Kaolack borom bi may nu toog ak yéen jotaay tey tay di dimanche di 15 novembre 2015 waye tamit di dimanche di ñaari fan si safar 1437 fa tabarakallah nonu la ñuy ñaane yàlla dugg émission euh, Wadduha si bismillahi rahmaani rahim ñaan yalla ka xaadatihi lépp jaar famu mu jaar seen émission Wadduha mbokk mi leen koy baaxee dimanche bu nekk di alxaaji Modou Cissé tey cant yu bëree bëree bëri dafa daje si émission bi fa tabarakalaa ndax depuis 2012 ba léegi émission Wadduha mi ngi am waaye yàllaa ngi dogal émission Wadduha bu tombeek bés boo xam ne li ñuy wax anniversaire bés boo xam ne day dafa tombe émission boo xam ne dafa tombe ak sama anniversaire Lalu doon cyant yalla yu bare bare Yusudaje. yu su dajé fa tabarakallah bala nuy sori rek kaxaadati yi dani def nanu daan def ta moy ñaan yalla fépp fo xamne ne kaddu agna fa nu ñaan yalla nu jang fatihatul kitab jang xul huwallahu ahad lim bu jappandi rek mo xam fukk ya ak ben wala fukk ya ak ñaar wala ñaar fukk ya ak ben wala ñaar fukk ya ak juroom ñaar wala fanweer ya ak benn wala ñeent fukk ya ak benn wala téeméer ak fukk ak benn wala téeméer ak fukk ak ñeent bépp lim boo xam ne bi jàppandi na si suratul ixlaas bi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam moo wax ne lu ne loo gis am na leer waaye leeru alxuraan mooy qul huwallahu ahad fa tabarak laa nu ñaan fépp fu sunu kàddu àgg nu jàng fatiha qul huwallahu ahad nu def ko xaddiyaay sallallahu alayhi wa sallama waaye def ko tamit xaddiyaay way jullit yi jiitu yëpp fa tabarakalaa bépp jullit boo xam ne jiitu na fa laa nu defal la ko xaddiya ñaan yàlla beesal yërmande sa ñoom ñaan yàlla leeral seen bàmmeel waaye tamit ñaan yàlla leeral seen gannaaw fa laa ba ñoom ñëpp nu nu koy waxee nu tëdd tëdd boo xam ne tëdd bu tàlli lay doon noonu it la ñuy siyaara kilifay diine yi ni ne aadoo di koy def rek fa tabarakala di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla yàlla yokk guddal seen fan lool fa tabarakala yàlla it yokk wéral seeni cër yàlla yegge leen si martabay wayjur yi si martabay maam yi <coughs> ndax fa tabarakala tiituru Sénégal jamaa Sénégal mooy sunuy kilifay diine nga xam ne bi fa tabarakala suuf bi yëpp yëpp yëpp fa tabarakallah nandal nañ ko leer ba nga xamee ne bii dañ ne téeméer ñoo jël si sénégalais lu ëpp juróom-ñeent fukk ya leeru mu ngi si ñoom kon loolu war nañ see yokk sant yàlla bu baax waaye sant si mag ñi nga xamee ne bii nooy sunu magu réew di leen ñaanal lu bari fa tabarakalaa tey sàkku si ñoom ñaan tamit nu ngi nuyu bu baax tey siyaara eh, borom kër gi kilifa gi di koy ñaanal di ñaanal kër gi di almadina fm fa tabarakalaa yàlla yokk fi xéewal ak naataange ak ñi fi yëngatoo ñëpp di si jiital eh, Serigne Mansour nias waaye di si jiital Omar Mbacke sek ak eh, kilifa gi Ibrahima Echa waaye sunu technicien bi nga xam ne moom la ni toujours muy Ibamar fa tabarakala nu ngi koy nuyu di koy siara di koy ñaanal sunu xel di dem lool si sunu jarbaat di alxaaji Abdoulahi Mbeng bu Siwal FM fa tabarakala nu koy nuyu di koy siara di koy ñaanal yalla di seet tamit way tawat yi tawat ñi nekk si hôpitaux yeeg ñi sooxaale ñëpp di ñaan yàlla mi nga ñi nga xame ne bii nattu da leen a dab ba caabi féete leen gannaaw yàlla yónnee leen ak ixlaas fa tabarakalaa ñi nga xam ne dañoo tukki uti xéewal bitim réew lanu fay daba ji si xéewal yàlla jàppandala leen ko mu yomb niñ koy waxeet yàlla sàmmal leen kër yàlla sàmmal leen àll di nuyu gardien yi ndax ndeysaan nuyu wettali ko nu ngi leen di nuyu bu baax di ñaan yàlla mi nga xam ne mooy xaafis yalla wattul len la nga xamene bi mom lañu garder garde di ñaan yalla ci rew mi yalla di senegal ak rew jullit yépp ni ni ado di koy def yalla jamu, jàmm yalla yokk sutura yalla yokk teranga yokkam kom lol tamit fa tabarakala nax ñak lu diwardi di war di muslu la ndax faqr an yakunu kufran dinañ ko waxe ne xaw tuut rek ki ñak xaw rek mu weddi wala baraane koo xam ne bii ñàkk a ko tax a weddi ñàkk ko tax a weddi ndax fa laa xëy na amagul dépense jillante ni téléphone am wadd mu ne téléphone bii de su ma ko jaayee wanteere war naa si mën a am dépense su ñaari fan fa tabarakalaa su fekkoon ne bu sayt bu amul ndimbalu yàlla lool rek ñàkk googu bëgg dépense que mën na koy poussé wu si ne bu mu woo borom ne ko kaay jël sa téléphone lu def koy posé si na jaay kon nag nga am loo dépense kasaaka it loolooy tax ñaare lu si bëree nit di jaawale poos sama poos jàmbur loolooy waral lu bëree bëri it fa tabarakalaa nit jencam jencam nit gannaawu ko loolooy waral loolooy waral yeneen ak yeneen yu bëri yoo xam ne bii doomu aadama dana koy def te du lu diine gërëm baraana lu ko doomu aadamay def te ñàkk te ñàkk moo ko se poussé kon nu ngi ñaan yàlla ni ko sunu mag ju baax jooju di waxee di oustaz Aliou Sall yàlla def si poos yi dara poos yi fa laa dinay dalal xel dinaa koy wax lu bëri bëri ne ndeysaan sama xarit yi nga xam ne lu may joxe exemple si ñoom laa koy joxe muy sama xarit yi séeréer yi dinaa di wax ne dina jafe lool séeréer buy naafi la naafi la ga teewlu mu teewlu naafi la ga lool te mu biir ko ne mburu mu muy jëndee suba eh, jàppandegul dina jafe lool teewlu gamat kon fa tabarakalaa nu ngi ñaan yàlla def si poos si dara te wallahi ibamar bari na si tawat yoo xam ne bëri na si feebar yoo xam ne du tawatu physique waaye tawatu jamono la te mooy ñàkk fa tabarakalaa nu <coughs> nu si doon dégg benn léeb reelu koo xam bi dafa feebaroon bi docteur bi ñëwee seet ko ne ah sama malade bi de moom macha allah léegi mu ngi am fee xanaa

mu nekkoo saawaay nanga def nag mu ne ko ah, sant bu baax kay xanaa kay man kay lenn rekk ma jaaxal da ngeen a waxoon ne da ngeen ma war a jox un million cent te boobu ba léegi maa ngi xaar dara ñëwagul ndeysaan ni ne waxee ne faj si xel la kooku mu wóor ko ne suñ ko waxee un million cinq cent médicament la boo moytul fa lay des moo dem waxtaan ak ay kilifaam nu fab dara ñëw jox ko ne ko léegi un million cinq cent yi kat dañ la siy dugalal lii sunu demee ba si kanam incha allah dina am leneen lu la topp tool monsieur Camara fa tabarak laa daal di wér sa sensé mi sàll si ne macha allah eh, yàlla na eh, yàlla def si poos yi dara yàlla na yàlla yombal xëy si ñu koy ut ñi nga xam ne bii jàppandi nañ si dara it yàlla def sa barke ba loolu duy fulandi te mooy muy yokk tànki barke moom du am mbiru boo barkeelee rek du am tànki gannaaw toujours kanam la jëm dafa tabarak laa luy yokk rek bu yàggee mat. kon nu ngi lépp loo xam ne moom la ñu téye te di say suturlu yàlla defal ko si barke ni ma ko waxee woon léegi nag ne tey Wadduha fa tabarak la Wadduha spécial la ndax ne mm, depuis 2012 fa tabarak la tombeegul émission Wadduha boo xam ne day tombeeg le 15 novembre le 15 novembre doon sunu anniversaire ni ko mën a tuddee anniversaire yi day doon ak cant ndax nit ak année bu mu mën a féetewoo anniversaire am maase woon naag nit te fa tabarak laa kookaa nga bar sàq maase woon naag nit te fa tabarak laa yàlla amaana mu teg koy natt yoo xam ne natt yu diis la te fa tabarak laa jamono boobu yëpp dox macha allah alhamdulilahi rabbil alamin rek la jàmb war a wax ak foo at ya mën a toll ndax macha allah ëpp na di wax dara doxut dinaa koy wax ne macha allah lan wax xewla woon démb si añ wala reer dox loola dox ga mu dox moo tax tey nu mën a xëy ndekki mooy taxi nu mën a añaat kon jullit fu mu mën di toll rek nay sant alhamdulilahi rabbil alamin di sant si yàlla na mu def te sàkkuwul si yow lenn lu dul nga yëg ko yëg ko ba pare nangul ko wax daaniyam yëg ko ba pare fa tabaarakallaa góorgóorlu sa kéem kàttan si santaaneem waaye di daw sa kéem kàttan si ya nga xamee bi gërëmu ko kon fa tabaarakallaa nan di sant nin ko waxee la in sakartum la asidannakum waroon bay wax su ngeen dee sant rek may dolli te macha allah eh, bu dee senele contrat ba nga am ak moom mooy su di indilee facture nga dem fay ko wala mu dagg sa courant su dee Sonatel noonu su dee beneen ak beneen bu mën a waaye nanu seet nit ku nekk depuis nga tuddee liir nekk fa ba mu yàgg macha allah di xàmmee dem ba mu yàgg sunu borom may lay tànk ngay dox di daanu di dem ba mu yàgg di dox dox bu dëgër dem ba mu yàgg di waj di ijji di waxantu noonu ngay demee bay wax mu leer ngay dem ba soo déggee xam ngay dem ba ràññee xam ak càmmoñ xam lu tàng ak lu sedd xam lu neex ak lu naqari xam lu baax ak lu bon loolu lépp ndimalu yàlla la loolu lépp tamit faddal la fa tabarakalaa muy teraanga boo xam ne borom bee ko defal doomu aadama su loolu de am nag macha allah eh, looy gën di at ya di gën di yokk yàlla di lay yokk lay xéewal te ni ko sunu baay alxaaji Ibrahima Sakho doon wax ne bët gis bi si doomu aadama di gis doomam rek ràññee ne kii sama doom la. nee na loola su doon facture lay doon kenn du mën am njëgu jënd ko fa tabarakalaa nax neex gu mu neex fa tabarakalaa na ngay wax ak nit tamit moo xam ka nga soppanteel muy sa soxna la wala sa borom kër wala muy sa wayjur wala muy sa doom ngay wax mu lay dégg moom muy wax nga koy dégg ngay wax muy tontu muy wax ngay tontu loolu su fekkoon lu ñuy facturé la doomu aadama kenn kenn kenn doom am jëgam kon lan lan deseel borom bi su bés yii nuy tuddee bésu anniversaire képp koo xam ne sa bés booba ñëwati na lépp loo santoon rek lépp loo santoon rek nga dolli ko xam ne macha allah eh, am nga contrat koo xame ne bii lépp lépp lépp lépp loo xam ne moo waree fam la si yow mat na waaye naka yow naka yow sa contrat ak moom sa yëg ga nga ko war a yëg na nga war a jàppee ne moom mooy yàlla na ma koy waxee yàlla mooy yàlla. si na nga koy war di jaamoo na nga koy war di wéttale yooyu yëpp ndax mat na fa la kon nu ngi sant yàlla bu baax di sant it jur yi ndax macha allah eh, jur yi lépp lépp lépp ñoom la fa tabaraka la te yàlla dogal ñoom ñëpp na nga bar sàq ngi ñaan yàlla si kàttanam ak man-manam yàlla yokk seen yërmande yàlla yokk beesal seen yërmande fa tabarakallah di ñaan tamit macha allah yàlla yokk guddal fan yi yàlla yokk wéral cër yi ba lépp lépp loo xam ne suñu fi nekkoon danu danan ko gërëm nu waslu si ak sunu kéem kéem kéem kàttan fa tabarakallah nu ngi leen nu ngi beesal sunu sant si ñoom waaye nu ngi beesal sunu jéggalu sa ñoom fa tabarkala ndax way jur su tuddee tur bu baax te mooy Muhammad alxaaji Muhammad fa tabarkala jàng jot tamit mu jàngal la alxuraan nu nekkoon si loxo yoo xam ne bi fa tabarkala mën nañ ne am nañ fa fukki at ak juróom-ñaar di alxaaji Mbay Siise mi nu njëkk a jàngal moom it fa tabarkala ma nga barsaq yal na yàlla yokk njéggal sa moom nu jóge fayit fa franco Arab bu jurbel jàng fa at ba li ni wax diplôme bac bu arab fa la dogale nu am ko doo gëstu fa tuuti yi dogal fa tabarakala si kàttanam ba tey nu ngi si njàng mi nu am ñeenti at yoo xam am nañ ko si wal yu kamil boo xam ne bii ndeysaanit yalla it yàlla na yàlla yi beesal yërmande de alhaji Modou moo Modou Xumma doon noon doom si tafsir maa jigi xumma nga xam ne wàll yu mag la fa tabarakalaa Saloum loolu lépp bu la ko way jur defalee eh, teete la ak jubbanti la waaye ak teg la si bëgg nga tegu si siraatal ma kon loolu nu ngi beesal cant gi fa tabarakalaa see ñoom di ñaan yàlla yit yoon boobu nunu teg ñun tamit si mbaaxu yàlla ak man-manam lu yàlla dogal nuy sa jur nu góorlu sunu kéem kàttan fa tabaraka la ndax nin koy waxee rek nit ku nekk rek war nay góorlu ba fu way jur yem soo ko mënula paaseen nga tolloog moom te defe naa ne ñu bëree bëree bëri bëri daanan dégg turu alxaaji Alla Cissé fa tabaraka ñu bëree bare bëri bu nu wéeteeg moom daanan dégg lam daan wax si sunu jur bu jigéen kon dañi sant yalla bi nga xam ne bii moo nu tànnal waajur émission Mar dañi nuyu sunu Waleri yi nga xam ne bii ñoom lañ bokk liggéey bi dañu si jital sunu rak di Cheikh Ahmad Tidiane Gadiaga mi nga xam ne bii moom laa fi doon wettali kontel dimas bi jall di nuyu ñi ne ci dara ji it xam Omar Jallo. di nuyu Ousseynou sen ak ay soxnam di nuyu badjan fa tabarak la ñom tu ngi leni nuyu di len Modou Gueye ñoom ñëpp nu ngi leen nuyu di leen siyaara di leen ñaanal di nuyu bu baax tey santit sunu mag di macha allah ku am solo ci Wadduha di alxaaji xaadim rasul Guèye defe naa képp ku ubbi wadduha point org fa tabarak la da xam ne ku liggéeyu yéene fa nekk waaye liggéey bu mucc ayib tamit moo fa nekk kon alxaaji xaadim rasul Guèye ñu ngi lay nuyu di lay siyaare di lay ñaanal yàlla di lay siyaare lu bare bare tamit si weeru safar bi ñu nekk <coughs> defe naa bu nee safar xel yi dana dem si 18 safar 18 safar bu ko tuddee xel yi dana dem si tahsimu Touba fa tabarakalaa di grand màggal di màggal ku jara màggal tamit di Seyxul Xadim Seex Ahmadou Bamba Mbakke kon alxaaji Xadim Rasul fa tabarakala nu ngi lay ndokkeel si weeru safar bi nu ngi lay ñaanal yàlla di ñaan yàlla yokk noo feddali wëllëre di ñaan yàlla yokk sàmm lu bëri it niki noonu la ñuy nuyoo sunu wayjur yi nekk point un di leen ñaanal ñoom tamit di leen siyaare lu bëri te di leen ndokkeel te mooy alxaaji al Fuseyni Sagna niki noonu ala Adja Fatou fa tabarakallah ñoom ñëpp nu ngi leen di nuyu ak seen i njaboot di leen siyaara di leen ñaanal yàlla di leen masawu lu bari tamit Ibamar fa tabarakallah ndax noonu fa toogal ak euh, woote yeeg gindi nit ñeeg ñëpp ñoo xam ne bii itteewoo nu ngi soxla loo xam ne si Wadduha la jëm si ñoom fa tabarakallah nu nekkal foofu si point 1 di nuyu bu baax tey siyaara tamit sunu jigéen. di Adja Aram Ndiaye fa tabarakalaa di koy ndokkeel si xaj bi mu jógee di ñaan yàlla nanu koy waxee rek kaala gi ràpp ak jàmm soxna Aram bu Tëngéej moom it macha allah nu ngi koy nuyu di koy siyaara eh, di koy sant si tasaare bi nga xam ne bii mu ngi koy yokk tasaare Wadduha ndax fa tabarakalaa eh, ku passeefu la si mission boobu jotee ñu bëree bëree bëri dina leen di fàttali heure beeg fréquence yi. ñu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal yàlla sunu wëlëre yi nekk mbuur tamit ndeysaan macha allah di ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal <coughs> Wadduha bu mbuur ñu ngi leen nuyu bu baax madame ñaa soxna Kumba ñu ngi lay nuyu di lay siyaara ni ki noonu di nuyu sa càmmiñ ji alxaji Yaxya Ka ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara fa tabarakala Oustaz moom it di soppay alxaji Abdou Aziz Sy baax nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal yàlla nu ngi nuyu famille Wadduha yëpp macha allah nga xam ne nan koy waxee kulim jum fa tabarakallah sama xel day dem nag si premier auditeur de Habib mbay sëñ mbay maa ngi lay siyaare bu baax nekk noonu it soppi Wadduha bi nekk parcelle di alhaji Diagne ñu ngi leen di nuyu yaayu Wadduha soxna sëy maa ngi koy nuyu képp koo xam ne yaa ngi bëggee émission rek fa tabarakallah alxaaji si se mu ngi lay nuyu mu ngi lay ñaanal fa laa ni lay ñaanalee noonu lay sàkkoo si yow ñaan kon xam naa tey da ngeen man ba tey wettali kon te ngeen émission bi si 70 104 79 17 ndax Iba Mar mu ngi may wax ne fix bi ba léegi dafa dérancé wu mais si kanam tuuti comme tey bésu sant la bésu siyaarante la ku dugg rek lépp lu mu bëgg nu fàttali kon tey depuis Wadduha commencé di am depuis 2012 lu mu bëgg nu fàttali konte si wala lu mu bëgg dolli jaam yi bu ko defee dana leen xaar si 70 104 79 17 fa tabaarakalaa nuy ut tamit tey fukki wëllëre ak juróom fukki wëllëre ak juróom yoo xam ne si barke sunu barke anniversaire bi danañ wëllërante ak ñoom sunu jaaree si 70 104 79 17 fa tabarakalaa nu ngi nuyu bu baax tamit euh, Kalidou Ba di nuyu turandoo bi di Alxaaji Modou Ba di nuyu soxna ya soxna Aysata ak soxna Aminata waaye di nuyu bu baax tamit Alxaaji Konta di nuyu turandoo bi di Alxaaji Modou Konta fa tabarakalaa sunu mbokk yi dëkkee Siwaal ñoom it nu ngi leen nuyu di leen siyaara fa kun Iba Mar da ngay am lu nu yëkkatil tuuti rek bu ko dana mën a bokk ñun émission bi si 70 104 79 17. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك خيوال دكتنا جوكتي على دي مودو سيزة وعمارا سيزة ملل أندلون كرافيل خمسون قاف إجاب الرسول سمسول بلاد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

77 mbokk yi kitaabu Wadduha njëriñam ëpp na njëgam juróomi junni ngir fajj sa mbir Wadduha yalla mo ci giñ yor yor la leppay leer alaaji Mamadou Cissé Mara wa gol allahumma salli afdala salatina ala أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم يا للقل سيدنا muhammad yaa ma leen gënal yaa ma leen manaloo muhammadu rasulullahi su la yàlla mayee baat bu neex nga mën a way te wayoo yonen dee nga ka ngay way dee na sa way wa niil na gëjoon naa di taalif ngir ñii di sàcc taalif te seeni baay bismillah 70 104 79 17 une émission Wadoha fa barakla et Mar mon ex si technique bi ku jaar foofu rek ni ko émission la 70 104 79 17 yene nu noo am tay n'ak fukki wëllëre ak juróom yo xam bi machallah dana am lu nu ak ñom ci bu fekkee dafa am ku ne si yoon bi nu jël ko Iba Mar bisimilah bisimilah bisimilah dafay xaw a dafa mel ni bisimilah. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw Adja. yal na yàlla nangu sax na. ah jërëjëf jërëjëf aja ah ndeysaan ah, dafa mel ne dagg na jotul nu joxe turam ah, xam dunia kini allah du ñàkk dina ñëwaat 70 104 79 17 dafay mel day xaw di saturé nag loolu la technicien bi wax 70 104 79 17 nu ngi nuyu bu baax it sunu jigéen soxna Tabara Taw soxna Fatou Silla. ñu ngi leen di nuyu bu baax tamit suñu jigéen soxna maam jaara bu Kër Massar di koy nuyu di koy siyaara bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah ah, ah kooku ah, ah sëñ Abibu Mbaye premier <laughs> kontaan naa trop waaye bi ma tuddee fii. jërëjëf jërëjëf. di ngay joxe ñaan léegi di uh-huh. ma toog nii. wallaay ndeysaan wallaay yal yàlla barke. wallaay bay. yéen a waa léegi wallaay wallaay ndeysaan. jërëjëf Mbaye. jërëjëf yal na yàlla nangul nu lépp ñaanal naa la jërëjëf Mbaye wallaay rawal rawal Mbaye Mbaye Mbaye sonu ñaan wallaay wallaay wallaay wallaay wallaay Mbaye Mbaye yal na yàlla barkeel fan yi rek am na ku ma toogal di bokk moom kàddu sama ndijaay la waaye bu ñu la dégloo mën na ma mën na ma ak yéen bokk ci nii di naxee te nag bu ma yàlla dama kontaan billaahi wallaahi taalaahi. ndeysaan ndeysaan. te te dafa jaral dafa julli ji ba pare mu dagg ay nelawam déglu émission Wadduha ba mu jeex te ci ban la ko doon déggee ma naan sëriñ mara sëriñ ma ne ko am na de suma sëriñ la waaye déglu ko ba pare rek. wallaay wallaay yal na yàlla barkeel la mbay. beneen moom boo koy dem ñooy ànd dama ne ko bu ma fa demee bay ñëwaat. Mm-hmm. dina ànd ak yow incha allah. wallaay wallaay wallaay mbay. jërëjëf yàlla na la yàlla xaj jërëjëf jërëjëf jërëjëf. yàlla gudd sa fan nag. amiin amiin amiin mbay. waaw anniversaire bi ñu yàgg kaa feete ay ati ati at. amiin amiin amiin Mbaye. maa ngi lay ñaanal te am yéene bu rëy nag yow boo xamante ne nii moom ëpp na ci man njort yéen naa yow lu rafet. yal na yàlla mottali lépp. yal na yàlla mottali lépp waaw maa ngi ñaan yàlla dem bu yor sama ay millions di ko indi di ko def ci daara maa ngi ñaan lool ci barke alxuraan yàlla mattali lépp mbay. illaahi jërëjëf sëñ Mara kontaan naa trop nag. jërëjëf ñu ngi koy demee ci wallaay wallaay wallaay wallaay di rafetlu tamit émission bi man su émission Wadduha jotee rek du ma am jàmm damay dagg sama lépp ñëw wallaay ndeysaan wallaay wallaay man naa nga toog fii jëriñoo ko am ci njëriñ ni wallaay jëlee ci loo xam te dina neex yàlla wallaay wallaay tànk laa nekk nag wallaay wallaay mbay mbay mbay Mbaye jërëjëf kontaan naa trop sëriñ Mbaye yal na yàlla fay la amiin amiin amiin amiin Mbaye Mbaye barakallahu fiik jërëjëf sëñ Habib jërëjëf sëñ Habib Mbaye premier auditeur eh, bismillah salaamaaleykum salaam wa rahmatullah euh, ngi sant bu baax mbokk bi mën naa am tur bi waaw Aydara Faye Aydara Aydara Faye. Aydara Faye baax na baax. Eh, bu la wooyee yokk Tóngoor. ah jërëjëf Faye. sëñ sa ñaari chiffres yi mujj sa téléphone mën naa ko am. ñaari ñaari chiffres yi si mujj rek. waaw kii kii 99 07. ah 99 07. waaw. waaw baax na waaw baax na. waaw kay jërëjëf ñu ngi lay ndokk. jërëjëf jërëjëf jërëjëf ay dara di la ñaanal yàlla yàlla dëgëral xam-xam bi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla matal ko. amiin amiin fay. amiin ndax ñu yaa gëstu yi fur lañ. jërëjëf jërëjëf. ak yàlla yàlla dëgëral taxawaay. amiin amiin amiin amiin. amiin amiin amiin fay. bég lu bari bég nañ lu bari incha allah bu suba 11 nu jokkoo si kattanu yàlla. incha allah jërëjëf jërëjëf. bisimilah ki si yoon bi. 70 104 79 seen émission Wadduha si Almadina bisimilah. bisimilah. salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah. na yàlla nangul nu yaaram mën na noo am tur bi. Abdoulaye Guèye ah sëñ Abdoulaye Guèye maa ngi am mbégte lool si jokko bi. <laughs> Abdoulaye Guèye borom taalif Wadduha. wallaay jërëjëf. wallaay ndeysaan yal na yàlla barkel la si barke Duha. ñu lay siyaare bu baax si weeru màggal bi tamit. <laughs> maa si bu baax. ndeysaan ah, dina ñaanal yàlla yokk at yi. amiin amiin ah, mbooloo yàlla ko yàlla def. amiin amiin def ko ci say téere jëf amin euh, yu bari jërëjëf Guèye maa ngi si bari buñ toogee ci rajo bay jëlee euh, benn xam-xam ci benn benn kayfiya mm-hmm. daanaka bu dee téeméer juróom benn fukki lañ lay jox ndëpp ñeen fukki wallaay wallaay ndeysaan wallaay la jëriñ dara wallaay ndeysaan wallaay wallaay loolu lan yéene wallaay wallaay waaw sallallahu alayhi science mënta weesu sàkku xam-xam ba nekk di ko nëbb wallaay ndeysaan dëgg la dëgg la dëgg la xéwal mënta weesu am xam-xam ba pare bokkaat ko nit ñi wallaay ndeysaan wallaay yàlla nu ko yàlla na la fay lu koy amin amin amin sëñ sa neex amin amin sëñ Abdoulaye jërëjëf bég nañ lool. wallaay siyaar na auditeur auditeur yi Wadduha yëpp. wallaahi ñëpp ngi lay ah, fay. si sama di am bégte it macha allah taalif bi àddina bi yëpp ngi koy déglu. ndax mu ngi si Wadduha point org. wallaay wallaay wallaay ndeysaan wallaay sëñ Abdoulaye. maa uh-huh. bu yombal xéewali màggal. incha allah si kàttanu yàlla. waaw ah, dañoo wallaay ndeysaan màggal dana bëri ah. xéwal si kàttanu borom bi. ak si barke borom bés bi. incha allah noté naa ko. jërëjëf sëñ Abdoulahi. jërëjëf jërëjëf jërëjëf amin wa iyaaka. macha allah sëñ Abdoulahi di sëriñu daara. di ku ñàkk kañaan <laughs> waaleykum salaam mbokk bi. waa kañ yaaram. yàlla na yàlla nangul am jërëjëf mën na noo xam tur bi. Ibrahima Sène. ah sëñ Ibrahima seen jërëjëf seen maa ngi wootee Cambérène. ah mën naa xam ñaari chiffres yi mujj si sa téléphone. ñaari chiffres yi mujj si sa numéro téléphone mën naa koo xam. ñaari numéro yi mujj. ñaari chiffres ñaari chiffres yi mujj si sa téléphone. bi ma lay wooyee nii. waaw non sa téléphone bopp rek. waaw man sama téléphone bopp. 30 moo ci mujj. waa baax na. waaw baax na sëñ Ibrahima. incha allah bu suba 11h nu jokkoo si kàttanu yàlla. yàlla barkeel. jërëjëf seen. yal yàlla barkeel mu ngi siyaare mbokk yoo fi ñëpp di siyaare xalifa bi bisimilah. bisimilah. ndokkeel ci anniversaire bi. jërëjëf jërëjëf yaram. leen dëggal baax ci anniversaire bi. nga na man li ma soog a woote nii. wallaay ndeysaan loolu bég nañ si. dafa fekk ni dama lay suivre nag si dimanche. wallaahi wallaay ndeysaan am nañ si mbégte. ma ngay joxe yëpp. wallaay yal na yàlla barkeel lépp. waaw yal na yàlla barkeel lépp. yàlla bàyyi la fi tam wax dëgg yàlla suñu jërëjëf jërëjëf yaram jërëjëf jërëjëf yàlla baarakallah fiik allah baax na baax na jotu la bàyyi tur bi tur bi mën nañ koo xam yaaram mën nanoo xam tur bi turu tour bi nga ni wooyee wala yaa yaa doon wat mooy Ibrahima Sène Ibrahima Sène mooy waaw waaw baax na incha allah jël naa ko sëñ Ibrahima ba suba incha allah baax na jërëjëf baarakallah fiik 70 104 bismillah bisimilah waaleykum salaam wa rahmatullah. ngi sant bu baax yaram. bu baax a yal na yàlla nangul nu jërëjëf. naka bi. ñëpp a ngi nuyoo alhamdulilah. waaw ñu. Mhm, ñu ngi indi doole di leen séddale rek di ñu ñu yàlla yal na yàlla saxal. te ah. wér amin amin yaram amin amin yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp amin amin amin yaram lu jiit lu jiitu tey sax maa ngi maa ngi koy waaj di ko bëgg ñu sax waaye xëy na yàlla yàllaa ko dogalagul wallaay ndeysaan yàlla na yomb eh. yàlla na yomb te barkeel ñëw lay teew bu baax a mën na noo xam tur bi Amsa Sall la Alpha Sall. Uh-huh. Alpha Sall. mën naa xam ñaari numéro yi mujj si sa téléphone. 01 01 519 01 baax na incha allah baax na sëñ alfa suba 11h si nu borom nu jokkoom waaw bu soobee yàlla incha allah yal na yàlla barkeel jërëjëf sëñ Alpha. yàlla barkeel dafa di jàmm ñu. amiin amiin amiin amiin amiin. naa bu yàlla dafa jàmm ñu jokkoo suba sax incha allah ñu ngi bu soobee yàlla. incha allah baax na si kàttanu yàlla sëñ Alpha. jërëjëf jërëjëf baax na yal na yàlla barkeel. amiin amiin amiin barakallah fik 70 104 79 17 seen émission Wadduha si Almadina bismillah بسم الله بسم الله بسم الله ام بك بيم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله يا يلا نانغلو اجا الحمد لله الحمد لله man de déglu dama déglu sax que di woote bi ndax di bëgg di noter affaire yooyu. wallaay ndeysaan yal na yàlla barke lépp loo noter. man la soxna Xadi Lo jëppal. ah dëgg la soxna Xadi Lo. man dama koy déglu bu baax a baax. yal na yàlla barke la soxna Xadi. ok jërëjëf. jërëjëf loolu dama doon ziar rek di la ñaanal ci bis baax ci ñaan yi na yàlla barke lépp soxna Xadi. mën nga ma jox ñaari chiffres yu mujj si sa téléphone. waaw 60. 60 baax na incha allah. waaw baax na incha allah si kàttanu yàlla suba nu jokkoo incha allah bëggoon naa fa sant yoon kër yi si kattanu yàlla bu àllëgee nu jokkoo incha allah. waaw tamit nga bëgg ñu bëggoon nga wax ni tamit naka la ñuy def bu yàgg di place ndax damaa nekk ci stage bëggoon ñu jël ma. baax na incha si kattanu yàlla si ñëw waaw na ñu ngi ñaan balaa émission dinaa ko noté baax na incha allah. jërëjëf waay fii loo seen émission Wadduha si Almadina 70 104 79 17 mooy yoon bi euh, mu nekk si technique bi bisimilah. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. Euh, waa euh, soxna si. maa ngi kay dañuy woote rek pour joxe suñu témoignage d'habitude daal ma déglu benn genre émission parce que dama doon wax ne ah, yi daal ay waxi caaxaan la rek. Hmm. mais yàlla moo dogal. Euh, bu ñu dégloo sa bopp ak sunu waa kër dans ñun ñëpp daal dañ ah kii de donte gisuñu ko mais ku dëggu wallaay yal na ko yàlla defal yal na nu yàlla defal loolu. ñu lay ñaanal sunu borom. jërëjëf soxna Anna la sa xam-xam. Euh, yàggal la. amiin amiin waaye wallaay jërëjëf soxna na loolu yéene bi mucc ak yokk wallahi wallahi wallahi wallahi wallahi jërëjëf Adja naa am ñaari sifre yi mujj sa téléphone. baax na waaw. Mhm. baax na incha nu jokkoo ëllëg si kàttanu yàlla. Mhm. Mhm. barakallah fika seen émission Wadduha si. almadina fm 100 point 8 fa tabarakallah Iba Mar si technique bi bisimilah ki si yoon bi waaw salaam wa yal na yàlla nangul na ko amin amin amin amin amin amin amin amin amin ko yàgg taxawee. amiin amiin amiin amiin. yal na yàlla fay. amiin na noo xam bi. waaw awa. Ramatulaay Diop. ah Ramatulaay. Diop mhm. Moussa ñëw Daara la. ah waaw mën naa am si sa téléphone. 22. 22 baax na incha allah nu jokkoo àll ak si kattanu borom allah baraka la amiin

ndeysaan ndeysaan ngam jërëjëf ngam ngam jërëjëf yal na yàlla barkeel la ngam mën naa am chiffre yi mujj sa téléphone mën naa am ñaari chiffre yi mujj si sa téléphone vingt et un moo baax na incha allah si kattanu yàlla boo ëllëgee nu jokko incha allah barakalaa fika jërëjëf ngom jërëjëf jërëjëf jërëjëf Ngom yal na yàlla barkeel fa tabarakallah seen émission Wadduha ci Almadina bismillah bismillah bismillah waaleykum salaam alhamdulilah alhamdulilah jërëjëf yal na yàlla nangul na Amin Amin. seen amin amin jërëjëf jërëjëf jërëjëf yaram tour bi nan la hmm mamoud Ba Mamadou Mahmoud ah Mahmoud aha ah. Mahmoud Ba wa manam chiffre bi mujj sa téléphone ñaar yi mujj hein eh? 75 75 baax na baax sëñ Mahmoud inshallah allah nu jokkoo ëllëg si kattanu yàlla. baax na yal na yàlla barkeel. yal na yàlla barkeel 70 104 79 17 incha allah su nu amee fukk ak juróom rek danañ téye di tuuti ligne bi bu ko defee ñëw si li nu indi tey si daara ji ndax Wadduha daara la te moom lay doon toujours it bisimilah yoon bi. waaleykum salaam wa rahmatullah alhamdulilah alhamdulilah ah ndeysaan ndeysaan na ma ngeen Wadduha wallaay dëgg la wallaay wallaay ndeysaan incha allah dimanche bu nekk da ngeen ko am si almadina ah ndeysaan jërëjëf nu ngi sant nu ngi sant bu baax الحمد لله تور بن الله اسمع اسمع نعم عليو عليو نعم بحنا من نعم ياري سيفري مجلس التلفون 67 بحنا وا ان شاء الله سن عليو نجوكو الله سي كاتنو يالا بحنا يالا يالا بارك الله yal yàlla barkeel fa tabarakallah ni mu ko waxee ñu bëri na mën a ni émission Wadduha macha allah bu dimanche jotaan foo ne fu ne fu ne leen di wootee déggu nu leen déggu na leen macha allah nu ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp di leen wax na it yëg nañ ñaan yi wala rëy soppe yi xarit yi ndax Wadduha macha allah famille la famille yi boo xam ne bii na ma ko daan waxee rek ñu yàlla dimbale ñoo xam ne bii macha allah. dañuy am xol yu laab dañuy yenente jàmm tey dañuy góorgóorlu seen kem kem kem kattan si loo xam ne ngërëmu yàlla la ak yonentem sallallahu alayhi wa sallam bismillah ki si yoon bi. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Serigne Mara Sy. waa kañ yaram. Mouhamadou Diop. ah Mouhamad Diop nu ngi lay si yaram. nu ngi sant bu baax alhamdulilah Diop. yàlla waaw naka yiteel ngi sant na ngi sant Diop Diop. kontaan nañu jërëjëf yal na yàlla barkeel. bis bu nekk dañ lay déglu nag ñu ngi dëkk fii nii dégg na. Eh, Pikine ndeysaan dëgg la dëgg la. na ngi nii ñëw naa kër ga sax ñëw naa kër ga ba jël si cuuraay yi. jël naa ñaar ah, wallaay wallaay ndeysaan yàlla barkeel ko. moo ko dégg rek wax dëgg yàlla sa sa wax wax dëgg yàlla ma kontaan ci daal am ci xel mu dal loolu ma jaar. wallaay ndeysaan loolu yow la. yal na yàlla barkeel mën naa am ñaari chiffres yu mujj si sa téléphone. waaw ah, cinquante vingt quatre. cinquante vingt quatre baax na incha allah nu jokkoo ëllëg si kàttanu bi. ah ci cuuraay maanaam noonu nu ko laxasee rek duñ ko tàqar ñi comme noonu nu ko laxasee rek noonu nga koy suuroo guddi. Ah, benn yoon bu bu nekk benn bu nekk benn yoon bu jant sowee. boo gisatul jant bi rek mën nga koo def. jërëjëf na yàlla barkeel. yal na yàlla barkeel ah, Mouhamed jërëjëf jërëjëf. nu jokkoo ëllëg si kàttanu yàlla. 70 104 79 17 bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Eh, ah ndeysaan soppi maa ngi la doon nuyu léegi. waaw maa ngi déglu maa ngi déglu maa ngi jaar jërëjëf jërëjëf jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf Sope Wadduha. xam-xam yàlla barkel la. yàlla mën nga allah. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. mën naa am ñaari chiffres yi mujj si sa téléphone. ñaari chiffres yi mujj. baax na incha si kattanu borom bi nu jokk nu jokkoo ëllëg jërëjëf jërëjëf jërëjëf Diagne jërëjëf yal na la barke Duha jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf nu ngi nuyu sunu walëre yi woote si suuf xam naa ñàkkul danoo insisté ma xaw a satiré ku si mel ni Aliou Touré Suwaal nu ngi koy nuyu di nuyu waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ah, eh, sant bi. Gaye laa Gaye. Eh, Gaye soxna Fatou. waaw ah, ah, bég naa lool macha allah. waaw <laughs> bég naa lool sama la déggee damay bég macha allah ndax tur bi. <laughs> jërëjëf Gaye yal yàlla nangal nu Gaye Gaye. kontaan lool ci émission bi jërëjëf jërëjëf Gaye. na yàlla defal jàmm defal ko seen njaboot. amiin amiin amiin Gaye amiin. amiin dëgg la. dëgg la Gaye. ñoom bàjjee nañ de. wallaahi wallaahi ndeysaan dinañ ko dégg incha allah. jërëjëf jërëjëf barakallah Gaye Gaye Gaye. Eh, fa tabarakallah 70 104 79 17. mu mel ni ki suñu jëlaatee ñaar rek dinañ mën a taxawandi tuuti. bisimilah. allo. bisimilah. allo. bisimilah. man. Abdoulaye Diatta. Abdoulaye. Diatta. Abdoulaye Diak. Diatta Diatta. ah jërëjëf jërëjëf. ngi sant alhamdulilah. alhamdulilah yàlla nañu amin amin amin sëñ Abdoulaye maa la woote di di lay sargal ko mën naa am ñaari chiffre yi mujj si sa téléphone di quatre dix-huit hein trente quatre dix-huit nu jokkoo ëllëg sëñ Abdoulaye incha allah yal na yàlla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 waaw ñu ngi lay delloo si waat si. jërëjëf mhm. na ñaari at ah, la sax jërëjëf jërëjëf. Ah, jëf soxna Mariama. barakala jërëjëf jërëjëf. jërëjëf mën nañu am chiffre bi mujj sa téléphone. waaw baax na incha allah. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf Cissé jërëjëf soxna Mariama amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin amiin bu am dafa am ku ne si yoon bi nga jël ko rek après nga yëkkatil noonu bismillah bismillah bismillah yaram. Ah, ah ndeysaan da yàgg a déglu Wadduha yal na yàlla barkeel yal na yàlla barkeel jërëjëf ah, ah, tur bi la waaw def nga lu baax yaaram yal yàlla fay la tur bi nan la Seydina Omar macha lan mo mujj ci sa téléphone. 34 34. waaw. baax na baax na nu jokkoo ak sayidina Omar. baax na barakala fika barakala ci Ibamar nga teel nu tuuti téléphone bi foto barakala eh, nuy sant na eh, fukk ak juróom la nu waxoon yu nu wëllëranteel yàlla def na presque lu jege 20 wote nan dañu ñaan ñoom ñëpp. temps ba nu jox woote baag xaalis ba sa dem ak yëpp yàlla yokkal leen ko yiwu si seen téere jëf ëllëg di wax ne képp ku ñuy déglu la rek sunu wëllëre la sunu sappe la waaye macha allah nañ ko waxee bésu sant la nu ne woon danañ si tànn comme fukki fan ak juróom la tombeel ak weeru nasaraan weeru tubaab nu ne dana fukk ak juróom ñoo xam ne sunu nu wooyee ëllëg si kattanu borom bi dana am loo xam ne dinañ ko wëllërante ak ñoom si kattanu yàlla. wax na ñëpp sunuy kóllëre lan ñëpp sunuy soppe lan nu ngi ñaan yàlla fa laa nañ koy yàgg di waxee rek e, mucc ak xéewal nañ koy waxee ne loolu yéenay Wadduha ñëpp mucc ñëpp yokk yàlla it yombalal ñëpp tibb ak sangu waaye tamit fa tabarakalaa ñëpp mucc si seytaane ak pexeem fa tabarakalaa ñaan yàlla nañu koy yàgg di waxee rek e, dëkkuwaay naat saytaane sori juboo mawadda ak rahma am si ànd yi moo xam jëkkër jabar la moo xam liggéeyukaay ak euh, ah, euh, patron la ak surga moo xam way jur ak euh, njaboot loolu lépp fa tabarakala sunu yéene mooy saa yu nu fi toogee nu wàcce nu wax loo xamee ne bii macha allah dina mën a jariñ ña nga xamee ne bii ka nga xam ne yàlla dogal na mu tombe ak loola ndax nan koy waxee émission Wadduha yàgg nay am waaye yàgg bëri na bëri na ñoo xam ne bi fa tabaraka yàlla dogalul nuy dajee ak moom ñi nga xame ne bii dañ koy jox seen temps jox ko seen nopp ak seen xol ñooñu yéene bi fa tabaraka la mooy saa yu nu toogee rek nu am lu nu leen lu nu leen bàyyee loo xam ne dina leen dimbali si seen dund ba tabarak laa tey Iba Mar dañuy njëkkee ba tey nan ko daan defee rek naafi la muy lu am am solo ndax ni koy waxee bonus la te dañuy bëgg jàmm bi toujours rek day war di yokki bonusam bay téere jëfam macha allah di fees dell ak yiw waaye téere safaan ba it macha allah yàlla di lenn du fa nekk wala lu fa jot a nekk mu tuub jéggalu ba yàlla effacé ko. te dinañ koy waxe ne buntu xibaadaat yëpp la sa gën mooy julli ndax xam ne nan asalaatu ximaadu diin <coughs> su passé julli nu ne mooy lan mooy jàng alxuraan su passé loolu mu mun mooy ak tasbih ak tahlil maanaam di bàkk yàlla di koy tudd bu passé julle jàng alxuraan loolu la mooy gën si xibaadaat kon la nga xam ne bii mooy ba nga ne fa kon woon président ministre euh, directeur cabinet kon si tan lo la kan nga si bëgg mu may la audience foog na ne fukk ñun ko bo may tul fukk bu nite nekkee si ñoom dañuy wax ne man président la bëgg togal la bëgg am audience ak moom la si ne kon fa tabarak la jullit bi yu yuy ñaan rek war nay njëkkee lëggan war sa julli ndax jambi bi yu ne allah kiir laay yene ya won digam ak borom bi yep fa tabarak la yalla da koy muri ne ko mangi ni man jambi bi moyu ma wuyu ñaanal ma jox la moy tax sha allah kuy julli bokoto sa adina bokoto sa moy kuy julli do saña lek do saña nan do saña gestu dosanya wah wax len len len lo xamne ne ci si julli gi kon la si ya nga ndax boo ne asalaamaaleykum rek ñibbisi googu nga ñibbisi mooy tax ngay nuyoo danga sañ lépp loo xam ne tere woon nañ la ko sa ba ngay julli soo ne asalaamaaleykum rek sañ-sañ boobu ñu wàn na si yow kon nan gën a fonk julli farata moom dama ko jëlale farata moom jëlle na dama ko jëlale mooy njortu naa ne benn jullit xelam nekkul si di faat waxtu wala di di di di baña jox yalla lam mom si julli waxtu juróom yoy nga xamne 24 heures yi muy fukki ñaar fukki waxtu ñent yi lu bëree bëree bëri di si xew yalla di la si mussel yalla wax la si ne bu bëree ba bëri jox ma si 25 minutes wallahi 24 heures bu la si laaje ne lu gën gey bëri jox ma si 25 minutes yo xamne mom mënu la ñak damay foog ne jom du passé nak vingt vingt cinq minutes yooyu nga bëgg koo xañ borom bi di te mooy faat waxtu kon nu ngi fàttali fépp foo xam ne suñu kàddu àgg na fa rawatina way jur yi ñuy gën a xamal njaboot gi julli ndax day farata la moom lañ koy waxee bonus la soo defee ndol leen la waaye boo defulee doo sam daanu yàlla mais la nga xam ne mooy farata bi nu si soññi way jur yi nu si soññi njaboot gi si julli fu mu jotee rek ñoom ñëpp nu soññi nu julli te soo gisee léegi waxtu buy jot rek ñaare seytaane dañuy tënk ñu bëri ba danaan tal leneen lu dul julli rawatina timis ak tàkkusaan mooy tax eh, yeneen ak yeneen yoo xam ne eh, seytaane dana say ñëw ba loola la ñu gën a connecté wu ba bu dee julli sax teew lu mën na say ñàkk surtout bu dee timis nga xam ne heure série yu bëri heure yooyu lay faral di daw yooyu nun way jur yi nañ gën a xiirta njaboot gi ba heure boobu jotee nga ne timis kat 19 heures 40 lañ koy julli 19 heures et quart ba 20 heures nga ne télé du tàkk wala boog bu dee tàkkit fa tabarakallah kenn du fa toog te julliwoo jox ko yàlla li mu moom ba pare te mooy salaatul mafrud yooyu moom dama foog na xel xalaatul di koy faat la nga xam ne moom la ni mm, laaxe biire mbokk yi kay mooy naafi la nu koy baril ndax dana di far rëcc-rëcc te rëcc-rëcc macha allah di ñàkk Nah, ni ko borom bi waxe rek su doon topp jaam si rëcc rëccam nee na du bàyyi benn daaba di taxawàllu kon tegtal la si ne si tooñ ko la ñuy dëkk waaye moonu wax ne suñu ko jéggaloo danañu jéggal mën na nuy jéggal ba pare sax lan ko tooñoon mu wëlbati ko def ko yiw loolu jëla jëlaalahu rek ko man fa tabarakalaa def naa doomu aadama boo tooñoon mën naa am mën na laa yeex a baal loolu nga ñëw tooñaat mën naa am du baal nga tooñaat moom woon ko day ñëw songoo ak yow jëflante ko ak yow borom bi nag fa tabarakallah day bëgg lool jàmm bi di koy jéggalu ba su ne laa la nga xame ne bi moom la defoon say rëcc-rëcc yëpp fa tabarakallah yàlla ne sama jaam lu doyadi la eh, fa tabarakallah lii mu rëccale woon si naka sudu noona effancel naa ko ko soo xibaada gi gën bari nag te mooy dinaa file lu bari xool bi set macha allah nañ ko waxee lu bëree bëree bëri lu taxaw léegi Iba Mar mooy xol yi wallaahi xol yi dinaa di wax ne da nga gis xol yoo xam ne ku mënoon a yër la fa nekk da nga yéemu te xol boobu amaana loo am bokk kook moom amaana xol boobu macha allah la la yéene su loola taxawoon moom dana ko yëg waaye du tere du tere du tere nanu koy waxee rek nanu gën a raxas xol yi bu set a set yéenante jàmm. koo gis rek ngay moom muy yow suñ ko defee fii senegal seetlu rek saa yu ñëpp bokkee ànd yéenante jàmm si menn mbir faw yàlla rus nu waaye lu nu lu téye senegal rek du dem te wànnal faddala bi yadillaahi yuutihi man yasha Iba Mar kenn mënula la tee tey jii nu nekk di onze novembre deux mille deux mille quinze kenn mënul la tere son excellence président Macky Sall doon jiite réew mi boo feek muy soob yàlla su yàlla dogee loolu yéene ko ko la nga man si jàppale si jàppale goo ko mën a def nga def ko saa su yàlla ne feela yem su ñëwee bu dee yow la soob wala keneen la soob noo xam mais seetlu léegi presque man nga ne sept ans sur sept yëpp politique la di euh, gasalante ay kàmb euh, ku. bu tooxi doona amee keneen profité yo yo yo fek nu ngi koy def macha allah lay demee rek kee day dem kii ñëw kee dem kii ñëw waaye foofu la taxaw nan essayé ñun ñëpp rek di nangu yalla yàlla dogal te mooy ku yàlla jiital nu ànd saak moom du tere yow lay sëccër macha allah nga am ko ndax koo gis rek am na mu féete kaw tax fu mu rek di warna di sante tey ñaan yàlla dolli. naafila boobu Iba Mar ñaari ràkk la képp koo xamee ne yaa ngi saxoo di koy def dinaa ne lii yàlla dina ko génne si yow ni ma ko wax doon waxee léegi mooy xol bu tilim te muy lenn gënul bon loolu mooy xol bu bon yàlla nu si yàlla musal moom ni seer ba dee rek xol dafa war a set loolu yàlla dina la si musal dina la musal tamit si rëy dina la musal si bokkaale dina la musal tamit si <coughs> lu bëree bëree bari fa tabaarakallaa naafila boobu kon defe naa ne am na solo si mbokk mu koy déglu mu di si mu koy sabablu waaye mu siy xiirtal njabootam te mooy ñaari ràkk yoo xam ne ràkk bu nekk faatixatul kitaab moom la siy jàng fukki yoon ak juróom-ñeent bu nekk faatixa def fukki yoon ak juróom bu sëlmalee day jàng faatixa 132 132 nu ne mooy lan nu ne 132 boo ko composé yaa ngi am xalbu dama doon wax ne naafila la boo xam ne day defar xol xalbu mooy tolloog 132 nga def ko si fatihatul kitab naafila bi képp koo xam ne yaa ngi koy faral di def semaine bu nekk gën ga néew nga def ko benn yoon sa yaatiin ya nga xam ne bii dañuy yàq xol nga xam ne bëggoon nga toog mën nga toog bëgg a saraxe mu ñëw dugg la ne ah yow da nga ñàkk fayda loom joxe ko wala nga toog bëgg dox mbokk mu ne la yow ni nga ñàkkee fayda ke yow yaay dem rek moom duñu mukk wala nga am ni sér bu baax bu yàlla gërëm mu jaxase la ba loola nga famm ko yàlla dana la musal si sayaatin boobu yàlla yi dana la musal si ma doon wax léegi te mooy rëy musal la si bokkale fa tabarakalaa dina la musal si kañaan kon naafila la boo xam ne nu ngi koy xaddi yàlla ñëpp ñaari rakk ngay def rakk bu nekk nga def 19 fatiha boo sëlmalee nga def fatiha 132 naafila la bu nu yàgg di wax la fa tabarakallah soo demee si 3w point wadduha point org da nga ko fa fekk wadduha point org mooy w a ñaari b nga def u def sa point org si kattanu borom bi képp ko xam ne rëcc na la si émission bi soo fa demee di nga ko mën a dabu kon loolu naafila la boo xam ne tey moom lañ leen xaddiyal nen koy waxee nu yéen saa yu nu fi ñëwee rek nu jaar si bunt boobu buntu nawaafil gën a xirtal nit ñi suñu bëgg ko gën leen a xirtal si ne yàlla ku jege la ku jege la boo ko wooyee dana la wuyu fa tabarakallaa nu nan koy waxee rek nu xam ne na ma koy waxee alxuraan du lu yàlla légalisel kenn du maraas sa muy wax sa moom rek ngay dem la nga soxla nga door koy mën a boo dëggee si moom loo xam ne lu wér la nan koy waxee am am moom xam ko gëm ko mu mu wér soo ko liggéey rek fa tabaraka la na ko Mara Cissé di jëfandikoo di say gis bunt boo ko jëfandikoo noonu nga say gis bunt différence ba boo amee rek macha allah sa ñaanin ba la te ñaan laytaay ba mooy xol bu rafet xol bu boo xam ne ëmbaloo benn jaam safaan loolu danay tey ñaan fa tabarak di wax ne ki ñëw jox la lu bari loo xame ne bii macha allah mën na lay bañ a du la jariñ dara sa say téere jëf ëllëg ngir ne la Iba Mar mii kat ak nogay nu ngi waaj a sëy te bëgguma loolu am wallaahi yàllaa yor lépp li dogal mu dogal waaye yàlla day seetaan ba mu bindee jaam bi may ko xel la ñëw ba si célébé yoon rek mu ne ko acca yoon bi jub mu ngi nii yoonu safaan mu ngi nii yaay tànn nag ki nga xam ne bii beneen yoon ko soob day connecté woog seyatin nga xam ne man nañ ne parti la boo xam ne ñoom dañoo concurrent borom bi jëla jëlaaloxu si ne ñoom it yor na ni dogal xam nga ki jey ka nga xam ne dafa yore fetal di tiire sa kaw muy taw dët di taw deret mu naan jam naa yàlla yàllaa ngi nàcc ba mu yàgg mu ne yàlla nëpp na ki jey loolu ba léegi si mu ngi fi te mooy seyatin seytaane nga woo ko ne ko ànd bale laa bëgg mu yàqu mu ne la waaw lu mën a nekk la boo defee ni def ni def nii nga fas ëf wala nga fas taal wala nga fas sànni Iba Mar ak Nogay doonoon ay soppe lool mawadda ak rahma ne yoon seen diggante loolu lépp mujj doon xadaawa ak baxda te mooy kenn bëggul a gis moroomam waxuma la bëgg a gis sax waaye yéeneetoo yéeneetoo ko yiw mu mel ni la nga ko yéene lépp si yiw day mujj doon safaan naka la jam bobu di defé lol ba paré nak di wéet tal loxo borom bi ne ko allahuma yàlla naan ko ke mënu la nek ak yenen ak yenen ak yenen yo xamné ak lu béré béré béré béré la ci né lu béré su taxawé rek man na né jëfin ba la man na né yoon ba nga ko jaar la fa tabarak la yàgg wax kuy dem Thiès te jaar payas bi wala jaar <coughs> wala jaar si route nationale bi lu mu yag yag so deppul da nga waaye fa tabarakallah boo bëggee dem cees dem ba jëm ñaaju nga dëpp demaat feneen dëpp demaat feneen dëpp amaana mën nga wër ay ati ati at waaye waa Thiès dunu la gis kasaa noonu lan demee yàlla ndabam dafa set mooy tax macha allah day bëgg lu set day bëgg lu yéene bu rafet na xam ne waxee ne xibaada yëpp yéene la ba ne su yéene woon defal nangam ibamaar commencé naa di am yiw ndax yéene yiw boobu ma ko yéene kon noo xam ne am tiyaaba lu yomb la su demee ba nga am loola nag te defaloo ibamaar la ko yéene woon tiyaaba ja door a dagg soo ko demee ba am loola defal ko ko nu gën la fëlandil tiyaaba yi kon lépp yéene la noonu lay demee safaanit bu fekkee sa yéene yëpp mooy bu mu dem seen yéene yëpp mooy bu mu am sa yéene yëpp mooy bu mu ma raw tey macha allah eh, nan koy waxee ni ko mag ñi di waxee bi béjjëne xar de laxas su mag ñaa ngi fi tegtal la si ne am na loo xam ne jéem boo ko jéemee it fa tabaraka la yàlla xudratom ak iraadaam jiitu na la si te rëddu yàlla jéem koy far defe naa ne fa xaru yem macha allah te ku yàlla dimbale ku yàlla defar nga sa yitte yépp doon na ki suufu na kii suulu mooy tax toujours rek dañuy wax njaboot gi ñuy gën a xirtal njaboot yi ñuy gën a xirtal njaboot yi si nuy bala nuy ABC nu baasin mi mara <coughs> dinaa koy wax ABC macha allah lu nu fi fekk la te dañ ko fi bàyyi waaye baasin si mara dafa barkeel ndax arafu alxuraan jiitu si danu xelel dafa am solo. moy tax loluy yi nu ngi si xirtal bu baax njabot gi sun dee ñuy jangantu sen ak jangantu nu commencé ko si baa si mimara danay tax sen dënn gën a danay tax tamit sayat saytane sori len di len di gëndi xirtal tamit njabot yi si nu len di nàndal loo xamee ne bii dalay da leen di dàqal si yaram da leen di jubal dana si <coughs> maye lu ci fatihatul kitab si ne képp ko am jaboot macha allah mus ku gane àddina rek si fan yi nga ko gane muy lu commencé si bés bi nu nekk di dimanche ba samedi si bés yooyu du ñàkk bés bu mu si doon nu ne bés yooyu juróom-ñaari bés la waaye soo demee si fatihatul kitab tamit juróom-ñaari aaya la kon nga ne bu dee alhamdulilahi rabbil alamin dama koy tuddee dimanche xayril mahdubi alayhim wala daalina su fekkee sa la juddu nga ne kooku samedi laa koy tuddee ndax eh, samedi moy jeexantelu semaine bi si moy tolok xayril mahdubi alayhi wala dalina. fa tabarakala bés bu tolok bu se xele bi juddu bo beugé mu don ku jub tan ku xamné ne lay don da ngay jang fatiha su fekke ne mësëragul man nga di jang fatiha so àggee si aya bi tolok bis ba comme bu dé malik yawmidin malik yawmidin moy tolok talata nga juróom-ñaar fukki yoon àggale fatiha su fekkee ne dimanche la juddu nga def alhamdulilahi rabbil alamin juróom-ñaar fukki yoon nga àggale saar bi soo paree nga ëf si ndox nu ko koy nandal su demee ba mën a naan mën nga ko ko bindal def ko ndox bu bëri mu di koy naan wallahi billahi la si la ilaha illa huwa giiru dundu xele boobu doo gis safaanu doo gis safaan mooy du xelaata dëng te bénéfice yëpp nag doom ju jub moo sa boo dundandoog moom fii si àddina macha allah dina la noppal tey la ku ne di ñaan te mooy bàyyi fi sa njaboot soo ko fi bàyyee saa yu jullee saa yu wéttalee yàlla dana la yónnee xaddiya te loolu bokk na si xéewal yi nga xam ne sallallahu alayhi wa sallam bi mu lim xéewal ya nga xam ne bii nee woon na du dagg boole woon na si bàyyi fi doom ju baax mu di lay ñaanal kon ku bëgg ba nu fii su àddina ak àllaaxira bu la yàlla mayee njaboot fexeel mu jub kon loolu na ngi koy xaddiyal ñëpp. nu defar njaboot gi bu njaboot gi jubee rek macha allah xel yi dana dal da ngay dund dund gu tranquille Iba Mar fa tabarakallah bari na si ñoo xam ne kar jaag yóbbu na leen wala feebar nan feebar boo xam ne eh, saaxira na te lenn tegu leen ko lu dul njaboot yor njaboot duñu jaarotaal ni koy waxee nu doon njabootu béjjën loolu musiba la te fa nu ngi gën juri ñaax waay dan yépp ndax danoo bàkke ne nooy xaritu waay juri yi tax duno si di leen di wax nu defar njaboot gi di koy commencé sa ba nek si biru waay juri bini ne tu tank di li bani nek nekk liir ne tu tank bani ni commencé jàng ni musere masere njabor gok fa kelas soo jaareeg mom fofu da ngay don yaw mu mudon da ngay don mom mu don yaw loolay waral fa tabarakalaa dundam yëpp day nekk yiw si yow tey macha allah saa yoo ko bàyyee gannaaw da lay ay xaddiya te mooy saa yu jullee yónnee la ay xaddiya te foofa fa tabarakalaa yiw du fa doy loolu laaxe biire la boo xam ne nu ngi ko doon laaxe biire suñu bopp ak waay juri yëpp fa tabarakalaa di ñaan yàlla barkel njaboot yëpp foto tabarakalaa ndax jur bu sonn rek njaboot la Iba Mar allah ni day toog yow. balay toog rek day am coono pour toog balay jóg tamit day am coono pour jóg dalay biir ne kii wérut waaye du tal boppam wallaahi njaboot njaboot rek xale yi sama doom sàngam nga xam ne bi loolu lenn waay waajur fa tabarakallah kon nu ngi gën a ñaax tamit njaboot yi ku si dem ba tollu fenn fi nan koy waxee ne bulletin de salaire ak bulletin de naissance sore na nga xam ne bi macha allah bi nga fi <clears throat> gane àddina da nga ñàkkoon lépp ñàkkoon kattan ñàkk xel sa way jur bari le ko lool yàlla di jël sa kattanam ma xelam di lay jox yow liir moom muy ngay jël sa ñàkk xel ak sa ñàkk kattan di koy jox looloy tax loo loo gën a yàgg rek ngay gën a nekk xel moom mu dem ba naan naax na fekk luy naax lam yoroon lépp si xel jox na la ko deseetul dara yow lon nga ko jox na nga meloon ba ngay xelel fa tabarak la kon no xamne len len len len fay kon nu ngi gëna ñaax njabot gi nu ngi gëna ñaax xelal yi tamit nu yok worma nu yok worma si way jur nah ndax waxadaa rabbuka an la tahbudu illa iyyah lan la si tek wa bi walidayhi ihsan kon war na no gannaaw borom bi rek fa tabarak la suñu borom wayjur lañu sante sant nan ko top nan ko nan ko magal kon ibba mar nga am loonu yëkkatil tuuti nu ñëwaat ak yéen seen émission wadduha bu ko defee bu nu del see da ngeen mën a wettali konte ñun si 104 si 70 104 79 17 maa ngi nuyu bu baax tey sant tey ñaanal tamit alhaji falluka fa tabarakala falluka nee naa mooy sama buntu falluka fa tabarakala ñu bëri ñu ñëw si mara sise bu nu wàccee si buntu lycée seydina limaamulaay taalibe boobu di fàllu ko fa tabarakalaa moo leen ni woon dëkkuwaay bi nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara si weeru magal màggal gi waaye sëñ Baara Diouf nu ngi koy nuyu bu baax di koy siyaara di koy ñaanal fa tabarakalaa si weeru màggal bi kon sëñ Iba Mar nga am loonu yëkkatil tuuti نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم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 77 262 36 28 77 262 36 28 Tire wadwa Amna Radio Siwal FM mi Amna point 1 77 571 59 77 77 571 59 77 Boki Kitabu wadwa Wadduha njëriñam Juromi na njëgam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 su la yàlla mayee baat bu neex nga mën a way ka wayoo yoneen dee nga ka ngay way dee na sa way wa niil na gëjoon naa di taalif ngir ñii di sàcc taalif te seeni baay fer nu baasin fa yaasin kooku mooy muhammadu rasulullahi ku lay jaay taar na sa xel dem si yonent ka taar ba yàlla yónnee ko sóoratu mbay xele yi sax ñoom day ya ngay palamtu yaasin kooka mooy muhammadu rasulullah rasulullah alhamdulilah rabbil alamin jërëjëf sëriñ Bara Diouf fa tabarakallah waaye jërëjëf tamit alxaaji Fallou Cissé alxaaji Fallou nu ngi lay nuyu bu baax di lay siyaara <coughs> di feddali sunu kollëre fa tabarakallah eh, am na solo eh, seen émission Wadduha si Almadina mën ngeen a àndaat ak ñun si 70 104 79 17. 70 104 79 17 nu ngi ci Almadina 100.8 Dakar 98.8 Kaolack bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ Cissé bi yaram ñang jërëjëf ñang bismillah ya sëñ ñang ñang bismillah nu ngi eh, mbokk bi dafa 70 104 79 17 nu ngi nuyu sëñ ñang bu mbuur antena mbuur allo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah ah, eh, nu ngi sant alhamdulilah alhamdulilah man de maa ngi woote parce que maa ngi tudd Adama Ba ah ndeysaan sëñ Adama jërëjëf ba sànq woo ba sonn pour dugg waaye mënu ma woon jot eh, wallaay ndeysaan dëgg la ba wallay ndeysaan wallay ba ba maa ngi kontaan si yow bu baax jërëjëf jërëjëf ba jërëjëf jërëjëf ok jërëjëf barakala fikk barakala xa barakala fi amin ba ba ba 70 54 allo bismillah ah. Seigne bismillah bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatulah. na ngi sant alhamdulilah. Sylvain Sylvain na ngeen dafa jàll. sëñ Souley Ndour. alhamdulilah waay ma jëlee. kan la Souley ma ma ne maa ngi maa ngi ma jokkoo ma xool sa rajo bu bi ngeen nekk. ah siiwal siwal siwal waaw dëgg la dëgg la waaw waaw siwal dafa am ni paan mais dimanche ma ne di nga ko am si dama voyage woon nag hein dama woon bu ma ñëwee nag dégguma dara ci affaire yi eh, ndeysaan wallaay <laughs> dëgg la dëgg la nu ngi sant nu ngi sant bu baax incha allah dimanche bu nekk da ngeen ko am si cent point huit incha allah incha allah te da maa jàpp rek yéen ci kay. wallaay ndeysaan wallaay wallaay yal na yàlla barkeel la. ñëw naa kër ay ñaari yoon ba. ah dëgg la dëgg la dëgg la. ñu ngi lay gërëm. yal na yàlla barkeel la jërëjëf. ñu ngi lay gërëm bu bëri la. jërëjëf yàlla jox xam-xam. amiin amiin yaram. yàlla yokk la wér bàyyi ko. amiin amiin amiin yaram amiin. alhamdulilah jërëjëf jërëjëf jërëjëf. baax na mu doon ziar rafet na rafet na. yal na yàlla nangu. incha baax na incha allah baax na. incha allah waaw. barakallah jërëjëf. jërëjëf jërëjëf yaaram maa ngi ko doon jaawaleeg eh, sunu son nduur yal na yàlla barkeel la jërëjëf sëriñ bi. amiin amiin. soixante-dix ah sëñ Malick jërëjëf. sëñ Malick jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. nu ngi nu ngi siyaar bu bëri sëñ Malick. man Ahmed Tidiane. Cheikh Ahmed Tidiane mu ngi nuyoo lu bari. <laughs> Ah. mu ngi nuyoo lu bari. jërëjëf Mbengue. waaw jërëjëf baarakalaa fika eh, nu ngi nuyu bu baax sëñ Malick Kayra tamit di wëll rek. jërëjëf. jërëjëf. 70 104 79 17 si FM. 70 104 79 17 nu ngi nuyu bu baax tamit sëñ Kalidou Gaye bu RMD sëñ Kalidou macha di soppe boo xam ne di koy wax mu nuyu nuyu si Ahmed Tidiane Niang waaw bisimilah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. yal na nangu yaram. ak nu ngi sant nu ngi sant bu baax. alhamdulilah ñu ngi leen di jaar bu baax a baax. jërëjëf yal na yàlla nangu Omar lañ koy wax Omar Diawara. ah sëñ kër yëpp. mu ngi sant Diawara Diawara. ñu bu a baax di kontaan yal na yàlla nangu yaa ngi topp Wadduha. ah. ma ne yaa ngi topp Wadduha. ngi koy déglu maa ngi koy déglu yal na yàlla barkeel. jërëjëf jërëjëf. waaw ah, ñu ngi na yàlla nangul ñu jërëjëf. waaw ah, ñun moom ay mbokku taalibe la. na solo. jërëjëf yal yàlla barkeel leen. amiin amiin yaa rabbi yal na yàlla barkeel xalima yi. ay zone zikar allah baax na. baax na baax na baax na jërëjëf barakala fik. ñu ngi topp ñu ngi topp rajo bi bu baax a baax. baax bu nekk rek si kàttanu yàlla. waaw ah, bëgg nañ ngeen ñuy ngeen ñuy jaarale nag Omar Diawara. Omar bind naa ko incha allah ko di dégg si ah, kàttanu yàlla fan ngay wootee. parcelle parcelle parcelle incha allah baax na. baax na sëñ Amar. baax na jaawara jaawara jërëjëf. nu ngi nuyu bu baax tamit sunu wëllëre e, di Serigne Moustapha Diouf bu xar yàlla fa tabaraka laa di nuyu sunu wëllëre. salaamaaleykum Thierno Jibi Sow waaleykum salaam. ngi def. nu ngi sant alhamdulilah. man la Abdoul Faye. Abdoul. Abdoul Faye. Abdoul Faye. waaw Abdou Faye waaw. ah Abdou jërëjëf Faye. na ngi sant mu ngi sant bu baax fay man de tey laa ah, bu nekk day am si kattanu yàlla. dëgg la dëgg la loolu laa dégg waaye maa jërëjëf jërëjëf Faye. maa ngi Eh, di nuyu bu baax tamit eh, imam ñaŋ moom it macha allah di wëllëre eh, nekk noonu ni ma ko doon waxee Thierno Jibi Saw bismillah. waaw asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw na ngeen waa kañ yaaram tur nu ngi sant alhamdulilah. waaw yow di nu ngi sant nu ngi sant bu baax yaaram. ñu ngi rafetlu émission bu baax a baax a baax. jërëjëf yal amiin jërëjëf man maa ngi tudd Abdoulaye Ndiaye di wootee Thiaroye ah Thiaroye sëñ Abdoulaye jërëjëf waaw ñu ngi leen siyaar bu baax jërëjëf Ndiaye Ndiaye yal na yàlla barkeel te yàlla nangul na amiin amiin waay jërëjëf Ndiaye ñu ngi émission bu baax a baax wallaay jërëjëf incha allah dimanche bu nekk rek si kattanu yàlla waaw da ngeen ko am fii si Almadina incha allah waaw yàlla ah, jërëjëf yal na la yàlla defal jàmm. amiin yàlla bale na ko jërëjëf. dafa ko dafa ko mboolem. Ah, ndeysaan ah woon nga si bu njëkk ne. waaw ah, yéen si jàmm dëgg la jërëjëf jërëjëf Abdoulaye. barakalaa fika 70 104 79 17 waaye nu ngi nuyu bu baax tamit imaam. Eh, bismillah. waaleykum salaam wa rahmatullah. naka njaboot. ñëpp ngi nuyoo alhamdulilah. waaw alhamdulilah am na daara ji. nu ngi sant nu ngi nuyoo bu baax. kontaan nañu bu wér a wér a wér. jërëjëf jërëjëf yaram. yàgg nañu la suivre xam nga rek tey la yàlla door dogal. ndeysaan wallaay wallaay. jërëjëf jërëjëf.

incha allah ko dégg balay jeex noté naa ko incha allah. incha allah na baax na jërëjëf jërëjëf. incha allah daal ñëw ba fa wax dëgg yàlla. bi sax moo ñu gënal wallaahi. wallaahi wallaahi ndeysaan. wallaahi wallaahi waaw yàlla day xaw a xam moom macha allah. wallaahi na ku ñu sopp nga Mm-hmm. barke alxuraan suñu xol la ñu tibbee li ñuy wax nii ku ñu sopp nga. ku ñu wallaay rawal rawal yaram wallaahi. wallaay ku ñu sopp nga wallaahi. jërëjëf jërëjëf. ku fi woote maa ngi lay ziar bu wér a wér. wallaay ndeysaan jërëjëf jërëjëf. bég nañ si la barke si yàlla Muhammad. bég si amin amin amin yaram. jërëjëf kontaan nañ jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf incha allah baax na incha allah. lépp loo joxe ñu rek yàlla nañ ci jariñ. amiin amiin yaram. lépp gis ci seen bopp ci barke alxuraan barke yonent yàlla Muhammad barke Cheikh Ahmad Tidiane. amiin amiin amiin yaram. kontaan na wér jërëjëf. walaay walaay ndeysaan jërëjëf. dégg nañ lool si jokko bi macha allah dégg nañ lool ku dégg kaddu gi xam ne kaddu xol la macha allah jërëjëf. yal na yàlla sàmmal nu kóllëre gi yàlla barkeel ko it fa tabarakallah 70 104 79 mooy yoon bi ñu ngi gërëm mbokk yi fi jaar yëpp fa di leen gërëm di leen ñaanalit di yokk sàkku si ñaan ñoom ñaan ni ko mbokk bi waxee léegi rek eh, nu jël ki si yoon bi. waaleykum salaam wa rahmatullah. mbokk bi. Eh, seex. ah dëgg la dëgg la dëgg la. dëgg seex seex nan nga wax. ah dëgg la dëgg mbokk bi. waaw saawa la saawa Birame saawa Birame. alhamdulilah na ngi sant bu baax. ma ko woon a xam. dëgg la dëgg la dafa xaw a saturé dëgg la. maam yal na yàlla yal na yàlla barkeel. amiin amiin amiin amiin. yàlla yàgg leen ci yéen. amiin amiin amiin amiin. amiin amiin amiin yaram. sànq laa dégg ci télévision bi après man xaaral ma dem ci liggéey wala mais maa ngi tànn tànn maa ngi tànn maa ngi tànn ñu laay déglu. wallaay ndeysaan loolu yiw la yal na yàlla barkeel jokko bi. yàlla def lépp day xewal.

ku nekk ka farandoo ak yow rek ngay bëggee fa tabarakallah nu ngi leen ñoom bismillah asalaamaaleykum waaleykum wa rahmatullah ah man la soxna Kumba ah ndeysaan soxna bu madame ah ndeysaan ndeysaan macha allah bég nañ si jokk bi ba tey dafa saturé ka alhamdulilah ñu ngi sant yàlla kon amaan nañ émission bi. wallaahi wallaahi ndeysaan nañ ko trop manqué woon nañu trop. wallaahi wallaahi ka wallaahi ka. maa ngi nuyu mboolem kuy déglu wal uh, Wadduha wallaahi wallaahi ka ka. ñoom Adja soxna Aram Ndiaye. ndeysaan maa ngi koy mu ngi lay fay si sama kaddu. yooyu fi ñëwoon ci conférence di wallahi wallahi ndeysaan wallahi ñëpp ngi lay fay si sama kaddu maa ngi nuyu sëñ Alla Touré ak soxnaam ak kuy déglu émission wallahi ka ka nu ngi lay fay si sama kaddu ka ñu séddale suñu kóllëre di kontaan ci émission di kontaan ci ñëpp ñu wallahi wallahi ka ka ka soppe tamit nu ngi leen di macha allah di leen ñaanal kontaan nañ trop <laughs> jërëjëf yalna yàlla yokk wér gi ak xam amin amin amin soxna Kumba nii nga ci amin ndeysaan macha allah yalna yàlla guddal fan amin amin amin ka ma war ñaan damaa kontaan trop wallahi ndeysaan wallahi soxna Kumba nu ngi siyaare waa Mbuur ñëpp di leen masawu si coono yi tamit ah, di leen ñaanal yàlla may leen barke doxa yàlla defal leen ko defal ko sa njaboot amiin yaa rabbi tey yaakaar am nañ si yaakaar lool macha allah. di nuyu daara ji ñu si daara ji ak ñu fay sàkku xam-xam ñëpp. ak ñu fay jàngale. wallaay soppe yëpp am mbégte si yéen soxna Ka. ma ne yëpp am si yéen mbégte. naan ni ma ko jërëjëf jërëjëf. wallaahi wallaahi wallaahi ndeysaan jërëjëf jërëjëf ka jërëjëf jërëjëf jërëjëf maa ngi nuyu sëñ Yaxya lu bari maa ngi nuyu Yaxya lu bari jërëjëf ka jërëjëf euh, Ibamar macha allah ndeysaan nooy ñi ma nekkal Mbour euh, macha allah doon ay soppe yoo xam ne daara la nu ubbi tuddee ko Wadduha fa tabarakallah euh, defoon conférence bu mag tamit dara nu ko te loolu yëg mënu koy passé kon nu ngi leen ñu ngi feddali suñu kollëre ak ñoom te mooy ñi nekk Sali Carrefour di lay ñaanal yàlla di koy ñaanal seen njaboot di wax yéene bi nu am yépp si njaboot yi fatabarak yàlla defal leen ko yàlla may leen barke duha yàlla sàmmal na suñu kollëre fatabarak xam naa suñu yàlla dimbalee dinañ gën a xool calendrier pour di seet weer bu nekk rek suñu ko même bu dee ñeenti fan nu ñëw dem fa wettali konte ak ñoom ndax ay soppe yoo xam ne bi macha allah eh, amoonu seen fay kon madame ñaa eh, maa ngi nuyu wëllëre yi ñëpp te moom macha allah eh, ñi nekk foofu ñëpp te bokk si daaray Wadduha nu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ñaanal di ñaan yàlla <coughs> sàmmal na sunu kóllëre it fa tabarakallah 70 104 79 17 mooy yoon bi bismillah jërëjëf man laa bi maa duggaat. E, kan la. Habib Mbaye Habib Mbaye. ah sëñ Mbaye. <laughs> premier auditeur waaw ñu ngi delloo ziar rek di gën a rafetlu émission bi. jërëjëf jërëjëf Mbaye. waaw ñu ngi fi ànd da te di la dégg suñu bopp nag di la wax nga ñaanal ñu. wallaay ndeysaan Mbaye. waaw man moom bëgg naa nga ñaanal ma trop boo dëgg yàlla sama dënn bi daal ñeente yi laa lay dénk mu nekk. ki mm-hmm. nga jiitu. Mm-hmm. topp yàlla suñu borom. xam mm-hmm. yonent sallallahu alayhi wa sallam. alxuraan tamit maa ngi lay dégg sama booba di la ñaan nga ñaanal ma mu nekk sama ndeysaan wallaahi yàlla la ko yàlla doon lay bëgg samay wéjur boole ko si tamit ah yow mii tamit. wallaahi wallaahi Mbaye. ndax yow moom yow yow moom yaa ngi sama xol bi wax dëgg yàlla. wallaahi ndeysaan wallaahi Mbaye. billaahi ba barki démb démb damay ma émission Wadduha commencé na si biir gént yi noonu laa bi a am émission bi. wallaahi ma déglu ko sama xol bi sedd guy guy guy. wallaahi ndeysaan wallaahi Mbaye. te émission bi te émission bi dama koy enregistré bu ma toll fan yii laa ko sama waa campus may nekkal te samay moroom yi पापा कमेंट किया है काफी ñu déglu émission bi ndeysaan apprécié te mosuñu laa gis mosuñu laa dégg tax nañ man man jëmm ju ñàkk solo ji tax nañ tax naa ñu di la déglu wallahi ndeysaan wallahi yàlla na la ko yàlla fay am ma kontaan si torop torop torop kontaan naa si torop nag jërëjëf mbay yàlla na yàlla may la barke duha amin yaa rabbi te nag yow tamit nga ñaanal ñu tamit inshallah pas fi ñu yóbbu si màggal gi wallahi inshallah mbay inshallah mbay kon moom si wàllu ndox laa yëngatu mool laa géej damay dem géej wallahi ndeysaan wallahi mbay géej gi xaw naa dëgër tuuti daal yàlla baax na lay ñaan daal nga defal ñu si ñaan bu baax inshallah sëñ Habib incha allah incha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf barakallah yal na yàlla barkeel la jërëjëf jërëjëf sëñ Habib jërëjëf Mbaye Mbaye macha allah barakallah eh, sëñ si jaayoo gi macha di premier auditeur yal na yàlla ko bismillah asalaamaaleykum waaleykum salaam wa waaw maane Adja maa ngi lay siyaare lu bari maane. ñu ngi dellu siyaar yàlla yàlla nangu. gi yëpp. ñu ngi yàlla yàlla nangu. amiin amiin jërëjëf maane. di ñaanal. jërëjëf nañ doon sakku. Mhm. naa la voyageur. incha allah dinaa ko dinaa si ñëw si kattanu yàlla. dinaa si ñëw léegi incha allah. baax na natt na ak euh, naafila bi ngay def diggante timis ak géewe. waaw waaw waaw mhm, mhm, mhm. baax na incha allah baax na baax na baax na. baax na yàlla barkeel ko Adja Mané foto tabarakallah la eh, ñu ko waxee kàlla gi ràpp ak jàmm macha allah yàlla barkeel njaboot gi it yàlla yàggal leen lool it bokk na si kolere yi bisimilah. bu amee ko na si yoon bi bisimilah. allo. bisimilah. waaw ah, eh, sant bi yaram. Cissé Cissé. Cissé Cissé. Cissé alhamdulilah Cissé. baarikàlla Cissé. jërëjëf Cissé Cissé. waa yéen a ngi na ngi sant bu baax. yàlla na yàlla xeeb doon. amin amin Cissé. waaw man de dama laa bëggoon a seet ma bëggoon a xam fi nga dëkkee ak yan bis laa fa mën a ñëw. incha allah si kàttanu yàlla maa ngi dëkk buntu lycée Géejawaay. Mhm. si buntu lycée Seydina Limamou Laye. Mhm. incha allah buntu lycée bi dend tali Pikine. waaw soo wàccee si croisement tali bi rek am na benn tableau boo xam ne Alaaji Xaadim Alaaji Fàllu def na ko fa. Mhm. bu def benn feles bu nu bind Kër Mara Cissé. kër allah si kattanu yàlla boo demee si boutique bu mu dendeel mooy Touba téléphone jàkkaar ak buntu lycée bi si kattanu yàlla dina la woon dëkkuwaay bi. incha allah si yàlla lu dul bésu àjjuma incha allah lu dul bésu àjjuma na nga fa. yàlla ñu yàlla wonale. amiin yàlla barkeel jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf bu amee ku ñëwaat rek nga teel ma bi ma. Mm, nu jot a tonteen si laaj yi fii ñaw xam naa mel na ni li des si minutes yi bëreetul bu fekkee amul kenn ku nekk si yoon bi e, ni ko Adja Mané waxe léegi naafi la tukki ba nu waxoon te mooy boo ëllëg laa yéene tukki nga koy def si guddi gi te mooy ñaari rakka rakka bu njëkk bi gannaaw fatiha wa yanqalibu ila ahlihi masruran ngay def téeméer wa yanqalibu ila ahlihi masruran lu rak bi gëna fatiha nga def wala saw fa yuxtika rabbuka fatarda nga def ko téeméer bo sëlmalee da ngay def faat wala saw fa yuxtika fatarda junni mais junni moy lim ba mag man nga def lim ba ndaw te moy téeméer nga tek si ya jamilu 66 so pare nga def ya xaniyu ya wahab, ya wahab nga def ko 70 fa tabarakallah lolu moy nafila bi 70 mooy juróom-ñaar fukk mbokk bi ma waxoon day waxaale wolof bi mooy juróom-benn fukk ak juróom moom ngay def si yaa jamilu wala saw fa yuxti karabuka fatar daa lim ba mag mooy junni di 1000 lim ba ndaw mooy cent di téeméer fa tabaraka la loolu mooy naafila koo xam ne da nga yéene tukki rek boo ne suba ngay dem nga def ko fa borom bi dana la mm, leeralal yoon bi. ba nga xamee ne bii da ngay dellu si dellu si gu ànd ak mbégte si kàttanam ak man-manam naafila boobu ma waxoon tamit ne naafila barkeel bu bari barke la donte woon naafila yépp am barke waaye naafila la boo xam ne boo ko defaree boo siggee boo tàllalee say loxo loo ñaan borom bi rek dana la rus a dama koy waxee na ndab am ndab am na nu muy setee soo ko tàllalee ibamaar dana la rus a rawatina borom bi nga xam ne bi macha allah léppam yiw la te wax ne su ngeen ma ñaane ma may leen naafila boobu diggante timis ak gee si gën dinaa koy wax nag ne yàlla dimbale nañu lu ëpp fukki at yàlla dimbale nañu na nanga koy def kon am na yëg nan sa dara naafila bi ñaari ràkk la moom tamit ràkk bu njëkk bi dangay def juróom-ñaari fatiha rak ñaarel bi gannaaw fatiha da ngay def juróom ñaari qul huwallahu ahad bo selmale nga sujoot defaat qul wal nga astafirullah bo selmale nga sujoot jàng rabbi la tasarni fardan wa anta khairul warisina rabbi la tasarni fardan wa anta khairul warisina dang koy jàng juróom ñaari yoon nga siggi talal say loxo aaye bobu ibamar yàgg naa koy wax ne képp ku bëgg wettal te mooy jëkkër wala jabar wala jëkkër wala soxna ndax jabar ak soxna wóote na saa yoo jullee fajar def ko juróom fukk ak juróom la gën nag mooy nga jéem a xam sa limu tur na ma ko doon waxee ne tur bu nekk am na lim te boo demee si kitaabu Wadduha da nga fa mën a xam sa limu tur comme bu dee Moussa nga tudd nga xam ne nangam la bu dee Ibrahima nga xam nangam la su dee maxtaar nga xam ne nangam la nangam lay tollol soo ko di def sa limu bu fekkee lim bi bari na ndax am na si lim limu tour yoo xam ne day xaw di bari man nay doon ay mille loolu day xaw di jël temps nga di koy def 55 saa julli fajar 55 mooy lan mooy mujjibu defe naa kuy ñaan rek nga yàlla nangul la nga sa bëgg kuy ñaan rek ak nangu nga say ut te mujjibu mooy tolloog 55 dina koy wax ne ñepp ko bëgg seen kurus am sarin xoog mujibu defe naa ne macha allah kurus gu ko am macha allah te mooy ñaan mu gaaw nu nangu ko ba pare nangu gu gaaw da ngay jël mujibu di tolloog 55 moom ngay def si rabila tasni fa dawanta xayrul warisin saa yu julley fajar nga def ko si kattanu yàlla yàlla dana la yombalalal wettal te mooy bu dee nga yàlla dana la yombalal soxna su dee soxna nga yàlla dana lay yombalal sëriñ soo ko amee it fa tabarak la yàlla mën lay yombalal ndono te mooy boo déggee alxayri rek jël ëmb fa tabarak la soo déggee alxayri it nga bëgg nga bëgg sa yéene njaboot moom la sa gën mooy nga di koy def sa limu tur donte woo semaine bu nekk benn yoon la nga koy def si rabbi laa tasar ni fardan wante xayrul waarisi na loolu it maa ngi leen koy baaxee si rabilata sani fardan ki nga xam ne bii dafa ne si barab di bëgg di bañ ji wéet te bu dee commerçant ba la xam ne commerçant ba nga xam ne la muy toog mooy ëpp la muy taxaw du xéewal nga xam ne man nga yenn saa yi boo ñëwee nuyoo sax ma xaw a fëkk bët loolu defe naa du xéewal kon lay xéewal mooy palaasam bañ a wéet palaasam bañ a wéet am mbooloo te mbooloo mu am barke saa yu xëy rek bu ko mënee mu jàng ko fukki yoon ak astaghfirullah téeméer ak fuk ak ñent si rabbil laa tasani fadan wanta xayrul waarisina yaa jaamihu rabbi laa tasani fadan wanta xayrul waarisina yaa jaamihu fa tabarakalaa lii képp koo xam ne yaa ngi koy def sa yo xeye bo toge sa place sha allah place ba yalla dana la fay may mbolo mu am jariñ koni it nung koy xaddi yal kep ko xamne ne yaa Wadduha si rabbil laa tasani fadan di wax ne couple yi nga xam ne bii amagunu njaboot nan ko jëm a mokkal di koy jàng si kattanu yàlla yàlla dina leen yombalal njaboot ki toll yi si ma am wéttal te amagu ko it maa koy baaxee si kattanu yàlla su jullee fajar mu def ko ñaan si yàlla wéttal yàlla dina ko ko yombalal ba fa tabarakalaa inaan sa laafa fi laylatul xadri ba tey ki nga xam ne bëgg na wéttal surtout jigéen ji bëgg sëriñ guddi altine bu nekk comme jamono ji nu nekk rek mu bu ko mënee def 444 444 so inna anzalnahu fi laylatul xadr mu yéene si yàlla defal ko wettel wallahi billahi la si la ilaha illa huwa si kattanu yàlla ak man-manam balay wàññi ay semaine wala ay weer yàlla dana ko may wettel loolu yi nu ngi koy xaddiyal mbokk yëpp mbokk bi doon wax ne li ni wax bayre dinaa ko baaxe bayre bu mag donte woo bayre du ndaw tama ànd ak kiirlaay xam naa samsul bilaat mu ngi si wadduha mu ngi si daaray wadduha samsul bilaat bind nañ ko bind alxuraan fa tabarakalaa di ut barkeelu ñaari junni képp kuy talibé tey téwo ko bo fi ñëwee di nga ko am muy alcorane bi ak français bi nek nonu karafil nga xamné ñaan bu reey reey reey reey la momit mu ngi Wadduha nga xamné ne sha allah lu itte yu bëré tawat yu bëri karafil daf say dox momit it képp ku ñew daara ja mën nga koy am ci 6000 mo xam bu français bi wala bu alcorane bi nik nonu xam sunal la sa nekk si koom la sa nekk si xel mu ubbeeku nga xam ne dañ ne boo yoree barke xam suna xaaf doonte woo yaa nga kaañ yàlla dana la fay fekkee xéewal yëpp si barke xam sunal xaaf moom it mën ngeen ko am xam sunal xaaf di kansul malik bi nga xam ne saafara la si ay yaram rawatina bët di xijaabu rasul nga xam ne bii sayful ahdaa lañ ko tuddee ñetti yooyu yëpp dañ ko boole def ko benn mm, si alxuraan ak français moom tamit képp koo xam ne itteewoo na bu ñëwee si daara ji mën na Momen am si ñaari junni lañu say barkeelu mu mel ki minute yi la sa des bëreetul la technicien bi wax nekki noonu it pharmacie Wadduha ñi dëkkee boori Mbour ñëpp suñu jokkoo dana leen jox uh, numéro soxna Ka fa tabarakalaa ñi dëkkee Kër Mbay ñëpp fa bu ñu leen jox numéro soxna Aram Ndiaye Adja Aram Ndiaye fa tabarakalaa mi nu nekkal min ñu nekkal Tëngéej ñi nga xam ne bii biir Dakar la dëkkee fa tabarakalaa suñu jokkoo dina leen jox numéro bi ne point 1 lu yàggul dara dangeen am yeneen barab tamit fu mel ni Ngor si kàttanu yàlla yéen neen ngeen am fa pharmacie Wadduha fu mel ni Kër Masaarit yéen ngeen am fa pharmacie di fàttaliwaale ñëpp tamit ne bu yokku nañ si pharmacie Wadduha gannaaw cuuraay bi gannaaw gàllaaju oto bi gàllaaju kër gàllaaju njaboot te muy luy tax xelel duñ ko du njaaloo wala duñu ko siif ak kiis ak euh, fa tabarakala luy toj lépp luy liggéey ak bayre gannaaw yooyu yëpp fa tabarakala ak jigéen ju wann lor yokkal nañ leen si daara si pharmacie Wadduha loo xam ne saafara la si kuy tooyal lal sañu ma ne xele buy tooyal lal ndax bari na am na mag ñoo xam ne di sax dañu koy def te dem mooy dem ba am yenn at yi te boo xëyee salal tooy si yàlla kattanal noonu ne yokk nañ ko si pharmacie Wadduha si kattanu yàlla ku ñëw daara ja danga ko am si kattanu yàlla nu say barkeloo euh, junni ak ñeenti téeméer fa tabarak laa euh, moom la ñuy barkeloo si xale bi tooyalal niki noonu bàyyira ban ñetti junni lay toj lépp luy liggéey juróomi junni kitaabu Wadduha bi juróomi junni galaaju oto mato scooter gaal lu mu mën a doon fa tabarak laa juróom ñeenti téeméer kii su xeleel juróom-ñeenti téeméer la gàllaaju kër junne ak ñeenti téeméer cuuraayu seytaane benn bu ne téeméer yooyu fa tabarakalaa moo nekk si daaray wadduha kitaabu wadduha ngeen mën ko am si barab yooyu yëpp muy point 1 si 77 571 59 77 bu dee tëngeej ngeen mën ko am si 77 261 36 28 su dee sunu dëkkuwaay nag te mooy géejawaay buntu lycée Seydina Limamou Laye fa la numéro jokkuwaayu Wadduha mooy 77 617 70 44 617 70 44 wala numéro boobu ngeen doon jokkoo léegi muy 70 104 79 17 di wax ne képp ku yàlla nar a dogal sag ñëw fa yàlla na la fa yàlla jiitu su fekkee say mbir nga fa fa tabaraka la lépp jàppandi si fa mbir ya néewul it fa tabaraka na ma ko doon waxee jotaay bañ ji am ndax la gën a neex si àddina mooy yaakaar la nga yaakaar nga fekk ko fa te si loolu la nu yéenee dox nee na mille 2003 ba léegi ay at la fa tabaraka nu ngi foofu si ndigalu sunuy wayjur te macha allah lépp lépp lépp ngi rafet. Tay njort nan si kattanu yalla yi day du jog di rafet na fa tabarakallah ndenkaan li nu yor ndenkaan la gannaaw ndimbalu yalla ak baxam ndenkaanu wayjur yi la tay fa tabarakallah fe na nga sa nan ko bëggee ak nan ko bëggee si kattanu yalla gëm na ne lepp lepp lepp lepp day yok nu ngi sant yalla bu baax di jéggalu bu fekkee am na lenn lu rëcc si kaddu yi nu ngi leen koy jéggalu gannaaw bi ñu ko jéggaloo yàlla di sant bu baax tey ñaanal tamit di sant bu baax ndeysaan sëñ Abdoulahi mu may wax léegi lu yombal xéewalu màggal xam naa màggal des na dese nañ benn dimanche avant màggal dinañ si ñëw si kàttanu yàlla incha allah xam naa maa ngi koy jox lu gàtt rek wa man yattaqillah yaj'al lahu maxraj wa yarsaxu min xaysu la yaxtasib wa man yatawakkal ala allahi fa huwa xasbuhu aaye boobu fa la kep ko wet nga def ko junne ak ben wet def ko junne ak ben saaru walay do na xal xalwa wet la rek do sa bolé ben aajo ci katanu yalla lepp lo sa yéene amul 100 ye da nga am 80 yi fa tabarak la tay yalla dana la bété xéewal yo xam fogo ko won kon nga ngi koy yal ñepp junni ak ben bo ne junni ak ben nu ne moy fuk ak ñet si 77 nu ne 77 moy lan nu ne 77 moy kansu kon loolu yoon la bu rëy rëy si aaya boobu bu ma juumul soratu taxaabun la nekk wa man yattaqillaah yaj'al lahu makhraj wa yarsuxu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa xasbuhu inna llaaha baliq amri qad ja'ala llaahu li kulli shay'in qadr fa tabaaraka nu ngi koy xaddiyal ñëpp dafa mel ni temps bi jeex na la technicien bi wax nu ngi sant yàlla bi mu nu mayee mu jeex ak alhamdulilahi rabbil alamin di gërëm mbokki yi wala rëy xarit di soppi ñëpp ñiy woote nag fa tabaaraka la ñuy wëllërante ak ñoom suñu jokkoo si kattanu yàlla amaana bu leen neexee nu jële leen seen bunt seen tur seen turu yaay seen date de sance seet leen seen bunt sarax jox leen tamit carte fidélité mooy carte boo xam ne saa yu nu fa ñëwee gisee ba day yomb si kattanu yàlla su nu jokkoo ëllëg danañ danañ baax danañ leen baaxee loolu incha allah lu si jub nu ngi koy sante yàlla jëlla jalaaluhu lu si safaane nu ngi leen koy jéggalu والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك في والدكتنا جوجتي على جمود سيزن يرغو أحمارا سيزن ملين أندلون كرافيل خمسون قاف إجاب الرسول سمسول بلاد